ni ñu ngi ni fii ci baarakum ñoo seeti suñu yaay yu baax yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di dekkali cosaani taaru jigéen ñi démb di njamu biraam duñ def daal lu dul dugg ci biir dëkk bi ànd ak suñu yaay yu baax yi nga xam ne tey ñoom ñooy wone li nga xam ne mooy taaru jigéen ci njamu si nañ fii ci guy bi guy bii mooy guy cosaan fii la ñoo njamoo bu ñoo njamu nag dañoo dem ci roni guy bi daal di nekk foofu noonu di tëgga di feeca woy seen woy yu neex woy yu daw yaram woy cosaan la ndax kuy jamu ñu koy entertain mu bañ a fii li nga xam ne mooy peen bi njam nag nekk na li nga xam ne taar la ci jigéen waaye jàmbaar rek moo ko mën a def kii nag di xale bu jigéen bi nga xam ne moom it mu ngi toog ci booram moom ragal na ba tax na daw na dem ci boor i géej bi meer yaa ngi koy dem toppi yéen ñëpp ngeen jàmm ah, laa fay may am mbégte tey ñëw fii ci baara alhamdulilah seet si leen ci wàllu cosaan dekkali cosaanu démba taaru jigéen yi démba ci njam ñu bëggoon nag ñëw ñu waxtaan tuuti ci wàllu njam bi ndax gis naa li ngeen xam ne loolu ngeen foo bi rafet na xale yi tamit ñu ngi nii tëdd ngeen jam leen mu doon loo xam ne lu rafet la wone taari jigéen la ma bëggoon nag am lu ma leen di laaj tuuti ndax njam dafa nekk loo xam ne lan moo tax ngeen see yëngu pour yokku taar la ndax dafa am lu moo yokka ci wér yaram ci yaa wa ci ki nga xam ne moom moo nekk di jam mu ne mu leen di nuyu di ñaan yàlla lii yàgg fi yàlla nañ ko yàgg di def yàlla nañu jik mu ngi mbooloo mi yëpp mu ngi leen di ñaanal yéen it ngeen egg ak jàmm mu ne njam day dañ ko fekk mbaax li tax na sob no mbaax koy li tax ñu fekk ko baax maam suñ maam yaa ko doon def deno mbiyeegul ñoom ñoo ko daan def wàññee leen dara te wàññiwul leen dara ñu ñun itam ñu jur ñu maam ñu fekk maam yi di ko def ñun itam ñu di def. Ah, mu ne njam. ana nga kita taar de. mu ne dinaay maye taar. ana nga kita wodo baal. dinaay maye wet yaram itam. moo tax ñun itam ñu jàpp ci. cosaan na ref ga nga fañ eh, ke bañ teegu in yok we mu ne cosaan la soo gisee yaay yi daan ko aaye a ah, sadare gi ndaga naangi roomeel mu ne dañ doon ragal suñ laay njam o nga daw sat giro kiij ke doo ñeme dégg yiñ laay jamee a fiyangaan yaay faari moo nga xana set su ko defee yaay jala jur dina ruus dina am gàcce to ino ngoor ka yaa ino maak we ndiiki mu ne mag ñi léegi yaay def na xa teb biñ nekkee xale kum nu fi oona loo def i mbug ta in toona ñawle a njal tang o ten soo ko defut sa morom ñi di la ree ben tang o la ko saagee mu ne téye na loxo njamkat soo gisee ñu woy ko dafa am kuñ doon jam mu téye loxo njamkat bi moo tax ñu di ko woy mu ne looloo mu ne looloo tax ñu foog ne ndax mu ne liñ doon daw moo tax toppa gannaaw gi kilifa yi di ko ken fa de danga ande nawle o fofa mbiyan su kilifa bi xamee ne sa morom ñi yëpp def nañ ko a xana waa soo ko taagoo rek daf lay bàyyi laam ndukum te atu coow ndax léegi tey mu indi coow ak gàcce ci sa biire xeet mu ne looloo tax njam ñu di ko def dañ ko fekk cosaan moo tax ñu di ko def dina joxe taar dina joxe wet gu yaram ndax deret yi ñoo génnee ci ci sa tuñ mi mun naa nekk deret joo xam ne deret ju aay la su ko defee nga gis muy nàcca nga di ko tufli mooy waral loolu su ko defee buñ la njamee di nga am ñetti fat yoo xam ne dañooy jël dara ci cosaan bi ñu defal la ko ci sa tuñ mi di nga am ñetti fan yoo xam ne dangaa taan teen rek ñu di la sol ndox su ko nga taanu rek ñetti fan dangaay taanu di siiku parce que di tuufli parce que soo siikuwut sa tuñ mi dafa dafa rëy nga gis mu yooru bàyyandeku bu wéree noonu rek nga gis tuñ mi laggi waaye soo amee ñetti fan nga am ku laay garde ngaay siiku mhm. ba am ñetti fan mhm. nga gis su dal di delloo rek mhm. nga gis gat sa jam dina rafet di nga am cosaan di nga am taar di nga am wet gu yaram moo tax njam benn tey munu da munu da passé benn tey ñu ngi ci cosaan gi ñu ngi koy def njam nag amut frontière amut séeréer amut olof amut soose amut pol Ah, amut frontière ñëpp la. waaw yaa booy li wax noonu leer na waaye ba tey ma jën a yaay laajte tam suma yaay ju baax ji toog suma boor moom itam gis nañ ne mu ngi jamu jamu bu rafet. ma bëggoon koo laaj ah ajaratu la. waaw ajaratu la waaw ajaratu la ajaratu njam bi ma bëggoon laa laaj nag ndax yow njamu bi yàgg nga depuis bi nga nekkee xale lañ la ko jam. ndax bi nga magee nga jamu wala depuis waaw loolu laa la bëggoon a laaj. loolu rek ngay laaj kontaan naa. eh ah kontaan ci laajte bi nga ma laaj. laamit ne te laamit na. ndax man ba may njamu. eh yaa teroo moo ñaari at rek laa am. kii